soo demee ci clinique yi en xale yañu ni seen xel rëcc na di leen faj nekk nañu ñaari téeméeri junnee xaleel ak juróom fukki junnee xaleel ñu ngi leen séddale ci hôpitaux yi ak clinique yi di leen faj ndax dof nañu lu tax parce que jur donte ay kilifa lañu mu ngi àgg nañ ci jëfandikoo sàngara ku nga xam ni feeñ na ci yóori doom yi ñu jur ba kenn nekkatu ci nit waaw ngay borom kër tabax sa château denc say milliards sa ñaar fukki voiture ci sa buntu kër ñi lay mat nañu fanweeri nit doom ji nga amul lu dul moom xëy dof ñu yóbbu ko ca clinique ba ñu woola ni la li nga def ci sàngara dafa ëpp ba moo dof lool sa doom kooku ban toroxte moo ko gën a kawe waaw yow bu civilisation sukkandikoo ci yow fu mu jëm fan كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي نحو من يحلل عليه غضبي فقد هوى فقد هوى لو معنى فمو توغون تا كاو نيب ني ماغا تا كاو فلي جولوتو جيم سي سي سوف شوت لاي دون شوت بو ري لاي دون فقد هوى لو وقل فقد مات faqad hawaa la wàcc na fa mu nekkoon mi ngi ci suuf